sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey alamin nee na nii rekk la ci yéene ji ak pastéef bi ak yitte ji ci jublu gi noonu rekk la dem bu nu ci kenn mag kon nag nu gën a santati rek gën a sant sunu borom bu baax mi nu booleeg sëriñ Tuubaa sëriñ bi di sunu lépp tey ak ëllëg nu doy ko sëkk suñu diggante ak moom di ko sant bu baax di ko seere saa su waxtu bu ne sunu jaayante di ko feddali waxtu ne sunug laxasaay parce que yéen a ci lim bëgg nu nekk ci daay man soxla wu nu dara tey ak ëllëg lu dul moom ak nekkal ko te yàlla rek a tax jërë ngeen jëf waaw fa tabarakallahu kon jërëjëf Mbàkke nu ngi yeesalaat rek di la sant rek di la sant rek ndax sa taxawaay bii tax na murit bu ne xam na ne ña ña buuroon wutali sëñ Tuubaa nañu meloon nekkete jombut moo tax saa su ne nga ñuy wax bu ñu ci kenn mag nañu xool taxawaay boobu tekki suñu bët bu ñu ko xoolee rek xam loolu jërëjëf na ñëpp tàllal nee na buñ ci jombale dara suñu bopp lu nu doyadi doyadi rek nañ ci nekk rek jërëjëf Mbacke te bàyyee suñu bopp ak sëriñ bi rek jërëjëf na ñëpp tàllal Amin. ok sëñ bi nee na mi ngi koy yeesalaat nee na. sëñ bi dana sëkk tey ak ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey